bi muy soog a wax kàddoom yu njëkk il est revenu sur les événements de juin dernier euh, événement sanglant dëkk bi yëngu woon na am ñu ñàkk seen bakkan ñu bëri euh, le président Sall dernièrement à chaque fois qu'il fait une sortie dafay revenir euh, ci loolee nga xam ne xëy na euh, tâche noire la pour Sénégal wala pour régime am wala wala naka nga koy expliquer absolument absolument je pense que le président est revenu sur deux éléments extrêmement importants hier d'abord pour la première fois un président parce qu'il faisait un bilan qui dit toute œuvre humaine est imparfaite président si boppam def na autocritique mhm. jàpp naa ne lim def am na lu des. am na mébétu lépp mais lépp matul am na lu matalul am na lu réussirul am na lu sooxee et il fait et il l'a reconnu quelles que soient les limites de son action l'essentiel ce qui prime et li am solo mooy son intention de bien faire lépp li nga xam ne nii mooy mu koy def il l'a fait de bonne foi et intérêt réew mi ak njëriñu réew mi moom moo ko moom moo ko tax a jóg loolu c'est extrêmement important et loolu c'est vraiment rare la deuxième chose euh, pour qui connaît le président Macky Sall c'est que événement mars deux mille vingt et un déjà. ak juin deux mille euh, deux mille vingt trois évidemment c'est des événements qui ont marqué euh, tout républicain sincère tout patriote tout démocrate parce que waxuma sax la sooxe mbir mi fa mu jóge yaa ngi dégg. mi mhm. li fi am ci yàqute. li fi am ci jëf ju ñaaw li fi am ñu mais imagine en politique parce que violence manifestation yàgg na am politique depuis tout le temps ça c'est récurrent par rapport à l'histoire politique mais imagine démocratie Sénégal ak su ñu démo fu ñu toll ñu dem bay jël bis buy romb ñu jël cocktail molotov sànni ci biir. na ci aussi. Mhm. mais loolu sax noonu mais c'est mais loolu ma ma parfois quand je vois à la télé où des gens essayer de justifier ça mais essayer vraiment de justifier cette abomination parce que c'est une abomination parce que je t'ai dit Mamadou Awa la démocratie l'exercice politique c'est la confrontation de vision, c'est la confrontation d'alternatives, c'est la confrontation d'idées programmatiques. C'est pas l'insulte, c'est pas la ah, violence. Mais qui, qui Ces gens-là, la vérité oui. des acteurs qui promeuvent ça, nous avons une promotion violence. di justifier actes yooyu ils n'ont pas la place dans l'espace politique. mais affaire boobu noonu li tax ñenn ñi di ci douter euh, mooy que ne est-ce que transparence bi war ci mbir mi ak suivi bi am na ci parce que boo seetloo États-Unis bi World Trade amee. ils ont fait une déclaration de guerre à Ben Laden traqué ko ba jàpp ko leeral mbir mi euh, France l'affaire Mera terroriste boobu noonu dañ ko traqué ba jàpp ko moom it dañ ko mujj faat yaakaar naa ma juumul mais affaire bi tër bii nii euh, on a qualifié l'attentat de terroriste wax ci lu nekk on a parlé d'arrestation mais ba tey sénégalais yi amuñ ci gindi lu leer mais mais dama lay wax ñaari mbir gis nga exemple yi nga ma jox yépp ci biir réew yi mu am du ay doomu réew mi ñoo ko def ay waa bitim réew ñoo ñëw ci réewu jàmbur def lool c'est vrai donc c'était des actes de guerre. donc actes yooyu foo ko gis acte de guerre la mais li gën a graaw moo tax man la si une abomination. Mm-hmm. parce que c'est des soi-disant patriotes ñu bokk ci réew ñoom ñooy def ñaawteef yooyu. c'est une abomination c'est-à-dire que c'est c'est incomparable ça na ça amul benn espèce de justification et quand on arrive à un niveau où des gens publiquement l'assument et justifient sa c' est que vraiment on est tombé. non mais kenn assumé wu ah, mooy que ne xëy na yëf yi des na la la la deuxième chose. la deuxième chose mooy euh, ñi ko def ñëpp ñu ngi kaso ah oui ñi ko def ñëpp jàpp nañ leen ñi ko def ñëpp ñu ngi kaso. mais est-ce que dina mujj fenn. ñi ko def ñëpp souvent même mars 2021. même ki ci rëccoon Kaba waxoon na après ba tey jusque-là xamuñ ci dara. non non non ce qui s'est passé ici en juin. Mhm. euh, si ces pratiques-là, on ne met pas un terme on ne sanctionne pas cela de façon exemplaire, mais notre pays va disparaître. Parce qu'on sera un pays anarchique. On sera un pays où il y aura le désordre permanent. Il faut qu'on accepte qu'on vit en démocratie et en démocratie, il y a des règles du jeu. Il faut que les acteurs respectent les règles du jeu. Mais le président Sall en abordant le sujet on sent ci moom euh, lenn lu ko metti il en parle avec regret maanaam regret bi déjà ñi ñàkk seen bakkan ak économie bi nekkoon à terre dëgg la mais aussi est-ce que nekkul benn tache noire ci régime am dans la mesure où ñu bëri jàpp nañ ne li mu xewee ak li ko sooke euh, jugu jugu leen ci trop génn génnu ñu ci mais ñi ko sooxe li leen taxoon a jóg mais c'était ça de mettre une tache noire mais c'était que mu am euh, explosion de mort pour mettre le pouvoir dans la c'était ça leur objectif leur objectif mooy ñuy compter ni dee et encore quel est le motif mais tout est bâti sur le mensonge et le faux mais vous pensez que un un homme politique qui trébuche dans sa vie privée doit être transformé en problème euh, national c'est pas sérieux mais vous pensez que un homme politique bu bañ ne duma wuyu ji justice citoyen na citoyen la dama bëgg a jiite réew mi duma dem wuyu ji jar na ñu ñu ñu ñu mobiliser ak yàq di justifier la ça mais c'est inadmissible et ça franchement Idriss dans l'opposition qui est candidat mhm. l'a le jour où on a un citoyen quelconque qui refuse d'aller répondre parce que ça c'est des vérités quelque soit sama xam quelque soit sama xam quelque soit sama xam yàlla may la doole may la mbooloo ak lum la munti may nit nga tu es tu n'es pas infaillible y a pas un infaillible sur terre mais boo boo juumee wala loo sax ñu jiiñ la mais ñu woo la nga dem wuyu ji. mais juin 2023 aussi est-ce que vous ne l'avez pas un peu cherché li dafa taxaw daal ne du amati. Sénégal oui, oui. et juin a été même plus sanglant. non mais c'est sa responsabilité. c'est sa responsabilité quelque part alors. non non dafa a wane benn alors. séquence. non moi je pense que ce qui s'est passé en mars mille vingt et les gens n'ont jamais peut-être soupçonné que. oui boobu dana nga bettoon. non mais soupçonné non soupçonné parce que xam nga politique bu fekkee danga si nekk nga nekk dans des divergences et dans la confrontation politique nga nekk un républicain et un démocrate dafa am ligne rouge yoo xam ne doo ko franchir. Mm-hmm. mais les gens ont pensé que. ñi ñu am en face. ils n'étaient pas capables de franchir les lignes rouges. c'est que évidemment beaucoup de mais on les gens se sont rendus compte que ñii c'est la négation de l'État moo leen tax a jóg mais loolu il faut que nit ki def ay jëfam ak ay actam nga mun ko comprendre mais c'est la négation de l'État. mais ça s'est reproduit non ça s'est pas reproduit. juin moo gën a euh, il y a eu plus de morts. Euh, a duré moins de non c'est je ne pense pas qu'il y a. plus de morts ou je t'ai wax naa la léegi mën la ñoom seen stratégie ils l'ont dit et assumé. seen stratégie seen stratégie saboter les points stratégiques. seen stratégie mais xam nga loolu yomb na. mais loolu c'est être en guerre contre son pays loolu c'est des actes de guerre boo demee en stratégie militaire lu ñuy jàng booy songu réew. point stratégique yi loolu ngay attaqué ndox mi courant bi euh, la communication nit ñi du ñu dem du ñu dikk loolu c'est des actes de guerre on n'est plus en politique on n'est plus en politique donc ces gens-là n'ont jamais été en politique ou ne veulent pas utiliser les moyens de la politique alors que euh, on était en politique et tout ça c'est du faux c'est de la propagande c'est de la manipulation Macky Sall n'a jamais dit à personne que day def troisième mandat pour mm-hmm. la rue gis nga même bu doon la rue moo ko poussé à renoncer. c'est bien il faut reconnaître sa mm-hmm. grandeur et sa sagesse parce que c'est quoi en définitive un leader c'est écouter son peuple c'est écouter les pulsions de son peuple mais dans tous les cas de figure ak lu waay munti wax il faut reconnaître sa grandeur il faut reconnaître sa sagesse mm-hmm. un homme politique un leader de cette dimension-là, c'est une grandeur, il faut avoir une grandeur d'âme, il faut avoir une grandeur morale, il faut avoir de la sagesse. Quel que soit l'une même si on a une pression de la rue, si on renonce, il faut reconnaître sa grandeur.